nga xam ne am nañ ko pour intégration dina jafe ñu mën ko doxal. il faut état de droit am ak li ñuy wax bon gouvernance aussi am. moo tax nga dégg protocole yu bari yeeg texte yooyu yëpp CEDEAO jël wala yu mel ne ay Union africaine ba loolu mën a am Afrique lii dañ ko war a dépasser comme li mu wax léegi parce que Afrique man sama point de vue li ma gis mooy dañuy def politique ba mu ëpp. ba dañuy fàtte li nga xam ne nii mooy li ëpp solo politique man ma jàpp ne ay élection ak ay mandat yooyu ça devait de soi juróomi at yu ne ñu def ko et mu jeex nit ñi nag aussi song li nga xam ne mooy la vraie bataille du développement. mi ngoog kuréel bi ni mel Fatou Abdou Foskao lay wuyoo sàkkuteef gi mooy njiiti réew yi di bokk CEDEAO ñu xoolaat seen doxalin ak toogaay wi jëm ci wàllu troisième mandat ndax am na yeneen question yu ëpp solo loolu. waaw c'est une question boo xam ne nag euh, naam am na yu ko ëpp solo mais très importante également boo xam ne dañ ci war a bàyyi xel Mouhamed parce que aujourd'hui la CEDEAO bari na ay dëkk yoo xam ne mi ngi fay dem di fa jël ay dogal parce que euh, dañuy dem ba yegg ci ay coup d'état mmh. et malheureusement ni ñu koy waxee dafa war a nekk la conférence bi nga xam ne moom moo jiite peuple yi mais warul nekk rek la communauté quand ci li nga xam ne ñenn ñi moom lañ ne mooy ko des li nga xam ne mooy constitution bu seeni i ay réew mën a ci jël exemple yu bari yoo xamante ne mhm. yegg nañu ci benn coup d'état euh, constitutionnel boo xam ne moom lañ nemeeku ca Guinée nemeeku ko également ci yeneen dëkk yoo xam ne am na fa euh, tey it lu mu fa jur aujourd'hui mooy ay jafe-jafe aujourd'hui cette question doit se poser mhm. muy lu ñeel wàllu ko troisième candidature mais fexe euh, ba sunu njiit yi di bañ di ñiit nguur maanaam mhm. bu ñu yoree nguur lu tollook ñaari at nga jox ñeneen ñi quand tu prends l'exemple des dëkk yi nga xamante ne dañu ko def muy États-Unis muy France gis nga fa mhm. euh, coow lu mel noonu daanaka réglé nañu cette question Sénégal aujourd'hui waroon nañu dépasser question boobu réglé ko ci li nga xamante ne mooy ñaari yoon yóbbu nañu ñu voté référendum et malheureusement bu ñu paree ay juristes ñoo ñëw di werante ñi naan la il a droit ñi naan la il a pas droit à alors que euh, ne pour le respect bi nga xam ne waroon ko am ci sa askan mhm. boo defee benn yoon defaat beneen yoon war ngaa mën a bàyyi mm-hmm. sur les 17 millions de sénégalais am na ku ci am xam-xam am na ku ci mën koo xamante ne war na mën a samp ndëndam kooku également mu sóoraale li nga xam ne moom mooy ñëw bu defee deux jox keneen je pense que loolu mm-hmm. dafa bokk ci euh, démocratie bokk également ci respecter li nga xam ne mooy constitution bu dëkk mi ngoog fataat bi ci jamono jooju bureau euh, opérationnel bu suivi plan Sénégal émergent daal nay euh, dallu ab étude impact jëm ci wàllu ko réduction émission gaz à de serre euh, ci transport terrestre bu euh, Sénégal waaye nag étude boobee li mu wane mooy électrification jëm ci wàllu ko euh, transport xam ngeen ne Sénégal mi ngi xëcc jëm ci wàllu woowee wax nañu ne lu am solo la te dina mën a wàññi bu baax a baax li ñu duppee émission ak gaz à effet de serre te loolee itam buñ ci tabe à cent pour réew mi dina ci gis ak boppam bu baax a baax boobu léegi ndaje nag ki ñu fa teewloon Abdoul Aziz Sow da baax la ak ñu soppi doxalin ci wàllu dem géeg dikk gi oto yi daw ci électricité bokk na ci luy wàññi bu baax yenn gaz yu ñuy sànni ci jaww ji buñ sukkandikoo ci biléb gëstu dinay am njëriñ ci environnement bi dina ko wàññi te dinañ mën a am ay gain yi nga xam ne mën nañ ko mesurer ci 893 000 tonnes wala million de tonnes yoo xam ne Sénégal dina ko wàññi ci co ci wàllum transport te loolu yëpp boo ko boolee yóbbu ko ci marché carbone dinañ mën a gagné entre milliards ba 67 milliards yu nga xam ne dinañ ko mën a jël reversé ko si fonds de développement des transports terrestres pour mën a def renouvellement par lu ni mel dina jur naataange ci wàllu koom gi waaye itam ci wàllu wér yaram dina tax yenn ci feebar yu gaz yi doon waral moom lañ jàppoon nañ ci AVC jàpp nañ ci maladie ischémique jàpp nañ ci maladie respiratoire mais tamit jàpp nañ ci maladie yi nga xam ne moom mooy dal xale yi tout tànk yi nga xam ne amaguñu cinq te yooyu yëpp électrification transport bi day tax mu wàññeeku lool ci biir Sénégal. dem géeg dikk gi bokk na ci lu gën a fës lu amal gaz à effet de serre yooyee ci àdduna gi looloo waral sax bi lépp gëstu ngi xam ne ni fii ci même réew dañu war a samp ab taxe bu ñu duppee assurance carbone ci bépp oto bu amal gaz yooyu ci lu jéggi dayoo. mi ngi noonu Abdoulaye Sow baax jërëjëf ñu àddu wax ci cité Barakan que ci liberté 6 euh, extension euh, ñu bëri ci ay euh, njaboot jëlee nanu jëlee lanu leen fa ñu ngi toll kon ci téeméer ci ay famille ñoom nag ci ay bidonville lu ñu daal di dëkkoon ñu déggeer piir leen mu mel ni kon dañoo rek tofu ci cité ya fa nekkoon jëriñ ñu dénk wàllu logement urbanisme ak hygiène publique moo entamé kon wala moo dallo ab vaste programme ñuy xeex lu jëm ci wàllu bidon ak sécurisation euh, capitale wile di Ndakaaru opération désencombrement boobee nag bi na ci cité Baraka euh, préfet bu Dakar moom moo ko jiite Mortal tin mi ngi xam ne ne occupant yooyu le euh, daanaka ñu ci bari bëri somme nañu leen ba noppi ñu quitté yooyu lekk lieu laata ñu leen di déguerpir ñu teewlu ko ak Mambay Ndiaye Abdou Malick aaju ci programme euh, bu ministère urbanisme tëral boo xamante ni day xeex dëkkuwaay bu jaarul yoon la tubaab di ko tuddee bidonville fii ci Baraka état du Sénégal tabax na fi ay immeuble jëlee nit ñi nga xamante ni ñu ngi dëkkoon ci ay barak dugal leen ci immeuble yooyu malheureusement bi ñu defee loolu am na yeneen nit yoo xamante ni ñëw nañ euh, toog ci pegg bi yaakaar ni aussi état dina leen defal lu mel noonu mais ni ngeen ko gisee seen nekkin fii dafa doy waar non seulement nit ñi mën nañu exposé wu ci ay danger mais aussi am na ay genre ñaawte yoo xamante ni mën na fi juddoo notamment trafic de drogue trafic euh, de personnes entre autres may fàttali ni fii ay téeméeri téeméeri nit lañ fi fekk ñuy fàttali aussi que ni ñun opération yi buñ koy def dañuy avertir ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk te sommation boobu suma ma juumul au moins joxe nañ ko ñaari yoon te comme niñ ko gisee jàpp nañ ni opération bi dina am jeexital ci koñ bi waaye aussi am jeexital ci objectif yi nga xamante ni état du Sénégal fixé wu na ko. mi ngoog ci wàllu kaaraange sax la ñuy des ak ñeent ci ay communes yu nga xam ne ñoo composé arrondissement bu baax. parquet ji amuñu benn yoon euh, police ca gox boobu le wala brigade sax bu gendarmerie localité wala gox boobu le mu ngi ci biir département bu Linguère ca région bu Louga zone bi ni mel nag euh, lu ëpp ci euh, càccum jur dañ ko fay nemmeeku ak ay cas d'agression que wa nag ci kadduy sous-préfet Saliou Ba ñu ngi sàkku karange gu mat sëkk ngir ñu mën a aar nit ñi ak seeni alal ay kàddoom Mas Ndiaye ca Linguère moo ko taataan mi ngoog Sikol kon daan ci ñëw ñuy fàttali rek na Saliou Ba mooy sous-préfet bu arrondissement bu Barkédji mi ngi doon yëkkati yooyu lekk kàddu euh, ci ab réunion euh, comité local de développement wi ñu consacré lu jëm ci wàllu insécurité euh, ca zone boobule. ñu àddu wax ci leneen soxal xibaar yi muy wàllu ko ndox di ab denrée wi nga xam ne lu jëm ci wàllug njëg li wan gis nañu ne amul benn yoon lu jëm ci wàllug yokkute at yu ñu génn muy fukki at yu ñu génn. di euh, affirmation wala sax kaddu yu muy dëggal moom directrice générale bu Sen'Eau euh, Diany Arnal mi nga xam ne mi ngi doon yëkkati yooyu lekk euh, kaddu ci circonstance yu ñu naan cherté facture ndox mi foo ko takk weesu na ko te askan wi ñoom itam ñoom itam seen bopp ñu ngi ci addu mu mel ni kon ni ki ëllëg wala sax ni ki démb la doon yëkkati yoolee kaddu ci Parcelles Assainies fii ci dakaar ginnaaw moom doon janook ak jigéen ñi Diany Arnal ñu teelu ko ak Alassane Ba nga Balde. compteur bi xool numéro yi mu la jot su fajaree ba ñu noot balaa xale yu joxe nga fotowaat ko xool fekkee ni numéro yooyu changé na tuuti nga xam ne am naa problème parce que li jàll ci compteur bi rek moom la compteur bi di marqué te ñun loolu moo ñu lii ak client bi ñun foofu lañ ñam amuñu droit dugg parce que armoire ku ne kenn du ci dugg donc mbir kër nit mooy armoire am ñun seen o amuñu droit dugg fa client bi moo ko moom donc client bi ko moom moom mooy xool ndax am na fuite bu amee fuite nag mu ñun dañ lay wax bu ñu ñëwee rek gis ni ndox mi li nga lakk bari na dañ lay teel a avertir joxe benn préavis wax la ah attention ñii ñu gis bu continuer facteur bi dina metti nga daal di jël nag say disposition par lii ma wax xool nag am nga fii mi ko yooyu lekk eh, kàddu eh, ñu koy yëkkatee ci euh, jamono gi ñu dugum doon amal ab euh, visite euh, moom directrice générale bu sen o ci Parcelles Assainies fii ci Dakar ci jigéen ya nekk wax nañu ne lu jëm ci wàllu distribution ndox mi moom ci banlieue bi gis nañ ne am na amélioration bu baax a baax Diané Arnal mu jiite boobu rek mi ngi félicité wu sax faf nag ci effort am solo yi nga xam ne état bu Sénégal def na ko itam mi ngi wax ne lu jëm ci qualité accueil bi ci agence dina ci liggéey bu baax a baax wàññi itam yéen it ci ay yéexte muy lenteur ñu nemmeeku ci traitement yéen ci ay dossiers usagers Alassane Balde fexe ba askan bi gën a jote ci ndox mi eh, ci diwaanu Ndakaaru ak banlieue bi directrice générale bu Sen'Eau nag daal di lam da nemmeeku askan bi nga xam ñoo yeewoo ci diwaanu Parcelles Assainies moom ko bàjjen gox yi am na tan ni moom lañ doon jànkonteel at yu ñu weesu amoon na jafe-jafe ndox mu jaaxaloon leen loolu waaye lépp fajul macha allah lépp faj na fi nekk ne ndox moom am na fi léeg-léeg dina am yenn côté yoo xam ne dinañ toog